aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala sayyidina muhammad ibn abdallah wa ala alihi wa asxaabihi wa xadimihi wa ila yawmi mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax su ko defee nag bu ngeen gisee jataay bi xam ne xew-xew mi ngi jublu si bi ci jiitu nag mooy siyaar bi nga xam ne ëhlu Cheikh Moussa gépp ñun koy waajal ca daaru kër sëñ Mor Khoroja Cissé mu war a daje le 11 mars incha allah. invité ci média bi yëpp ñu war fee daje amal fi jataay yu ama am solo yoo xam ne dañ ci njukkalaale kenn ku bokkoon ci ñun di jàmbaar lool wax dëgg yàlla ku ne xam ko ci baatub laa ilaha illallah mu ko daan yëkkati xel yi dina daj Cheikh Maam Góor Diouf. ku ne xam ko ci kalima boobu leen muy baatub laa ilaha illallah képp gis muy génne ci làmmiñam baatub laa ilaha illallah sëñ Tuubaa nee na bu leen ko noonu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum ñu ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp di leen woo ci bés bi ni ko bàyyi suñu jëwriñ ji bi euh, Kamal waxee le samedi 4 mars incha allah euh, maison de la culture d'Outa Seck ñu fiy amal waajal ziar daaru waaye nag ñu fi rendre hommage Euh, kii nga xam ni képp ku mus a xewle wuyu si na la képp ki nga xam ne mus ngaa woote fekk si na la te képp kuy taalibe Cheikh Moussa mus na laa bégal donte benn yoon la ci baatu laa ilaha laa bi nga xam ni moom la ñu bokk muy maam ngóor bu nee zikrullah yaakaar naa képp koo xamante na yaa ngi seede baat bi nga xamante ne mooy ashhadu an laa ilaaha illallaah wane na ci bis bi moo xam góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina nag sama mbokk si sikarkat yi nga xamante ne ñoom dañ koy dund wane nañ ci bis bi ñu teel a ci waxtu bi comme niko ko Ben Aya waxe amna surprise bo xam ñu ngi koy wajjal te xamna bu ñu leen ko waxe ci bis bi tamit na doon contentement ci gor yàlla yi. ñu war ci rendre hommage ben gor yàlla bi nga xamanteni ñëpp xamoon nañ ko ci war bi te yag na béggal ay jaam ci kalimatu la ilaha illallah yag na joylo ay mag ay ndaw tim ci kalima bobu te koku moy Cheikh mam Ngor Diouf. bu yi tuddu yàlla amal bu ci sobo ba genné ci da ngay fone ne dañ ko xëpp paanu ndox day ñaq bay taw nga xamné ki Hal bu tàng tàng tàng tàng bu ñor xomm xomm xomm xomm ci la doon yëngatu mën nga ko fekk ci lu ne doo fekk mu ñàkk mais zikrulaay moom bu ca xasee dugg bu génnee da ngay fa ne ndax dañ koy tuur paan ndox kon kooku ku jar rendre hommage la ci ndigalu nag xalifa bi nga xam ne fi nekkal cheikh moussa cisé di kilifa gu mbooleem njabootu kër Cheikh Moussa tey jii képp kuñ naan yàlla yàlla la képp ku naan taalibe Cheikh Moussa la tey ci jamono muy sa kilifa di sang bi Cheikh Aliou Cissé yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko ak mbooleem ay rakam ak mbooleem cheikh yi nga xam ne ñi ngi aju ci kër Cheikh Moussa te itam di leen woo ci bis bi bàyyi ñu kenn ñu ngi ñaan ñëpp ñëpp képp ku mën a doon su la ko sa jot mayee na nga ñëw su la ko xañee na nga ñafe pour ñëw suñ kilifa gu tedd gii sëñ Seet Diagne nga xam ne kàddu gi dañ ko doon ubbil rek waaye woote bi ak yëgle bi lépp ci loxoom lañ koy teg ndax moo fi teewal xalifa bi ñu jéggalu sax toogaayu kaw gi ndax xëy na jataay bee ko laaj rek waaye ñu ngi koy tuub di ko jéggalu baax a baax te mu may ñu ko bis la boo xam ne waajal siyaar lañ ci jublu te képp kuy taalibe Cheikh Moussa ñu ngi la ciy xaar le samedi 4 mars 2023 incha allah à partir de 15 heures fii ci maison de la culture Douta Seck wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu